mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen ànd ak ñun ci rajo Rewmi FM ñi ki tey ci émission gox bi ñuy dalal docteur Macoumba Diouf nekk maire bu commune bu Latmingué di ko dalalaat beneen yoon ci émission gox bi ñu am ci mbégte lool itam di la dalal ci émission gox bi fii ci rajo Rewmi FM. Euh, jërë ngeen def maa ngi leen di delloo nuyoo di leen gërëm bu baax ci invitation bi di nuyu euh, auditrice ak auditeur yu rajo Rewmi FM ñu xam ne lii mu nañu lool nekk ci biir réew mi nekk aussi ci euh, bitim réew euh, di leen balu ak ci koor gi di leen bal ak di ñaan suñu borom mu may ñu yeggali koor gi ci euh, jàmm te ñu ci jàmm suñu boroom nangul ñu ren mu nekk lu am solo lool ñu woorandoo ak suñu mbokk chrétien yi te itam ñoom itam ñu ngi si njeextalu koor gi wala sax ñu ngi ci ndax ci seen wàccaay yi lañ nekk mu nekk lu am solo rek ñim réew. Euh, tout à fait ñun dama faral di wax ne yàlla def ñu vraiment daf ñu daf ñu nakkal daf ñu daf ñu beral loxo man loolu loolu laa jàpp suñu réew ak suñu communauté suñu population xool rek ni diine mel ci réew mi ak àndante bi ni mu taaroo diggante diine islaam ak diine chrétienne mu dem ba ci famille yi néew na fi famille booy dem te fekkoo fi ay représentant wu ñaari diine yi yëpp euh, nit ñi au-delà de bokk gi ci deret ñu am dégg-dégg ci diine muy islam di yoonu chrétien bu leen may ñu cultiver fraternité maanaam euh, mbokkoo voilà jokkalante Euh, bëggante euh, jàppalante dimbalante ba nga xam ne doo sentir sax euh, manifestation diine boobu ci ci ci ci réew mi nga dugg ci tarixa yi même chose ay cousin lañ doomu day doomu yaay ak doomu bàjjen loolu nag li ñuy wax régulateur social ni cousinage à plaisanterie mel muy beneen ndollent maanaam kalante ni mu mel noonu la ni ñu mel ci biir tarixa yi mel ko ci biir diine yi loolu nag ay c'est phénomène yooyu phénomène régulation sociale la maanaam moo tax moo ndar képp moo téye suñu réew ba yenn yi man gëm naa ne munu fee am donc loolu lu ñu jara sant yàlla ren nag mbir mi dafa ala daw mais comme ni nga ko waxee ndax diine yooyu yàlla daf ñoo wonaat ci beneen façon moom ni benn lañu déggoo bi ñu am dafa war a continuer xoolal Karim fi muy jeexe fa lañ nekkee ci digg koor tey ngelax yi ñuy joxe weekend bi ñu dugg muy tey di suba samedi dimanche ba altine muy feetu pat altine dina bëri famille bu fi nit ndogoo ngelaxu suñu mbokku chrétien yi ndax ku nekk xam nga ne xeetu ñam la boo nga xam ne dafa dëppoog xeetu ñam yi jullit yi di faral di utiliser ci koor mm-hmm. moo xam ba ñuy ndogu moo xam ba ñuy xëdd kon gis nga loolu muy ñamu dugub di ñam bu nit ñi miin ci société sénégalaise nga lax donc vraiment mu nekk waxtu wu yéene maanaam ak dog jog nit mu dog mm-hmm. ak yiw yi ñu ci wax ak xéwal yi ci wax tey nga jox ko ci loo xam ne yow it ci sa jaamu yàlla moo tax nga def ko xoolal rek sync li mën a tuddee syncrétisme religieux euh, bi bi bi am euh, ci société bi ni mu taa kon daal vraiment maa ngi ànd ak yéen waa réew mi FM ak di ànd ak sénégalais yëpp di rafetlu euh, du ma ne tombé ndax yàlla lu mu def mooy di war a am daje boobu mm-hmm. ak waaye li ma ciy wax mooy njàngat liñ ci war a jànge ci biir euh, mu ngoog lecture boobu laa doon jéem a mhm. def di ñaan suñu borom teenu suñu réew aaral ñu ko mhm. saxal fi jàmm mu jaar ci diine yooyu mu nekk lu am solo ah ñu ne itam ñu leen di ñaanal rek bon fête ci euh, wàccaay bi xam naa ñu ngi ci ku ci mel ni ñoom Jacques Matar Gomis Elisabeth Diatta di leen souhaiter li ni mel mais monsieur le maire ñu jóge ci ay élection Lat Mbengue bi nga xam ni yaa fa nekkoon maire yàlla def ñu tabaat la lan mooy secret bi ñu ngi la dégg ci émission nga ne Lat Mbengue sa titre foncier la. waaw jërëjëf loolu euh, d'abord maa ngi sant sunu borom di jënd ci yéen sallallahu alayhi wa di sant sama ay wayjur waaye di sant bu baax population Lat Mbengue yëpp ñoom ñi nga xam ne su ma nekkee maire foofu 2014. ñu beesalaat seen kóolute ba ma ne 4 mai 2022 ñoom la neex donc li may gërëm loolu laa bëggoon a njëkk a gërëm ñaareel bi di ñaan suñu borom yaakaar bi ñu am ci ñoom ci ci man ñoom ñooñu ak yéene man bi ma am ci ñoom mu may ñu ku nekk ñun ba yaakaar yooyu ak yéene yooyu bu ci benn tas ndax ñun ak yéen ñu am ak góorgóorlu waaye du sotti sunu borom la neex bu loolu passé nag dama naan secret bi xaw ma sax laa ko moom tuuti secret bi daal moo di ne euh, mooy def rek dëggu dëggu politique bu dee si am naa secret ci loolu loolu la dan laa tuddee dëgg dëggu politique politique dañ ne mooy l'art de gérer la cité mhm. maanaam tey boo firee politique li mu war a tekki mooy ni nit di yoon bi nit di jaar ba mën a bokk ci ñuy taxaw askanam moom dimbale leen ci moo xam xam-xam ci moo xam wërsëg ci mise en relation maanaam dugalante bu tax ba dara mën a jóge bërëb ñëw fa maanaam mu doon daal ndimbal ca gox ba loolu mooy politique dëgg te man politique boobu moo tax ma dugg ci politique li tax ma ma teqale koog liñ tuddee léegi politique parce que liñ tuddee léegi politique en réalité du politique maanaam jël politique def ko métier boo waxee ñu ne ñu téye gémmiñ fekk wax ja ñaaw boo waxee lu lu bon ngay wax ci sem nawle sam nawle buy romb yaa ngi ko yéene lu bon ndax jàpp nga ne moom bu amee yow nga ñàkk mel ni gëmatuñu suñu borom te yàlla wax ñu ne pare na ci ku ne. wërsëg ku ne bind na ko booba ganegul àddina nga ne jullit nga nga ne gëm nga loolu ba pare te jàpp nga ne diw bu amee rek yow moom nga ñàkk. sag am yaa ngi ko teg ci ñàkkuk keneen ki yan ci yàlla musal. donc liy tax nag ba politique dëgg-dëgg nga mën ko def loolu laa jàpp mooy maa ngi ci sant suñu borom. te jàpp naa ne ñi ci mel ni ma ne ñu ngi sant suñu borom mooy dangay góor góorlu nag ci sa àdduna ak ndimbalal say wayjur ak suñu borom surtout ba am ci loo jàpp loo nga xam ne moo téye sa sutura moo téye sa teraanga la ngay dundee yàgg sa njaboot ak lan nag sax te la ngay dimbalee ña la yaakaar mu jógee ci sa wërsëg loolu mooy mën a tax nit def dëgg-dëgg li tax ñuy wax politique. loolu mooy tax ba da ngay xalaat kay koo defal mais wutoo ku la defal muy benn yokkute bi ngay xeeñtu boo nekkee ci politique. bu boobaa day doon pour askan wi mais du pour yow maanaam ndolent loo am muy muy teraanga très bien muy ndombo tànk muy wërsëg muy leneen bu sosoo ci yëngu politique boobu nga doon yëng promotion boo ci amee wala yeneen da lay ne ci askan wala dem ndax yow yàlla dafa na lu sutura wax dëgg yàlla mën nga sa bopp. Mhm. ndax doyal nag amul ci àdduna doylu moo am kon ñii entre guillemets bëgg a pour ne pas dire yàq bëgg a xajamal politique bi. lu mhm. ñu ko xajamaloon ba pare sax mooy ñi nga xam ne tey boo doon laajoon sa sëñ bi yow luy sa métier bu bu dee tontu na dëgg daf lay wax politique. te du métier. mais mais mosul doon métier réew yi politique. jëmale kanam yëpp cité wu ma benn exception politique nekk fa métier da ngay am kay seen métier hmm? ànd nag moom dugg ci politique man lu lu tax ma ma mën a participer ci lu suqali sama gox. Hmm. moo tax ma dugg ci politique. lu tax ba man astuce bi ma xam mën a jëriñ le plus grand nombre. Hmm. moo tax ma dugg ci politique ndax boo ne yow xam nga astuce man nga astuce. te yow yaa ci ginnaaw rek bëgg a féetee commentaire ak kaas rek ci salon yi du mën a sotti da ngay fexe ba euh, dugg ci ñiy décider. Uh-huh. nekk pour que bés nga bokk ngay décider wala nga bokk ci ñiy décider wala nga bokk ci ñiy waxal ñiy décider pour que xam-xam bi nga am ak mën-mën bi nga am mën a jëriñ mais bu dul loolu lan lay jëriñee kon loolu man bokk na ci li mu dugal. Uh-huh. ci politique donc à part donc. delloo njukkal sama askan bi mm-hmm. nga xam ne sama ma teraanga fekk falaa fekk baax baax fekk ma fa mm-hmm. à part delloo njukkal askan woowu nga xam ne falaa juddoo màggee fa ñu dépensé ci man sonn ci man ba ma doon li ma doon tey mm-hmm. à part li ma jànge woon te xam ko gën a jëriñ réew mi moo tax ma dugg ci politique kon looloo looloo looloo ko waral donc loolu la bi ma ko defee te comme nit ñi dama faral di wax ne nit ñi kenn bañul sa bopp nit a ngi fi bari mbooloo yaakaar ne yow la nit ñi gëm déedéet ñii seen bopp lañ gëm waxin la maanaam nit ki ku ñu seetu nii gis seen bopp ci yow ñu topp la nga yaakaar ne yow la fekk ci seen bopp lañ nekk mhm. boo leen nekkalee rek ñu topp la parce que kenn bañul sa bopp moo tax ma jàpp ne daal bu dee am naa secret loolu la te dem nañ ba askan wi gisal boppam ne ndekete mhm. kii day ñëw fi ngir lu ma am ndax li muy def ci ñun rek ñun amul ci mairie bii nga xam ne trois cent mille moo fay indemnité te te te laalu ko wocce nañu ko. maanaam yow doo laal sa. déedéet déedéet mosuma koo laal. am na fu muy dem. waaw ci dimbale askan bi te fajul sax lu bëri ci diir bi moo ko jot parce que man par laa ko jot te loolu bu doon la laa fay dugal par dina dina bëri ay déet néew ma nag maa ngi faj déet déedéet suñu borom rek moo ko mën waaye wax dëgg yàlla maa ngi góorgóorlu ba ñoom xamal nañ si wàllum boobu ndekete kii du lu mu am moo ko fi indi maanaam du du ay yaakaar dañ koo gis dañ cee teg bët tey nit ñëw ne la fii la meer jaar ak man loolu day bëgg a tolloog indemnité weer ba kenn nit. moroomam jëwee ma ko feneen moroomam jëwee ma ko feneen moroomam jëwee ma ko feneen donc dañoo dund ak taxaw jóge ci man jëm ci ñoom ñu dund ko ci dimbalante wàllu solidarité wàllu social dund ko ci jéego yu gox ba def li ma yëw ci commune bi ñeenti dëkk ñoo fa amoon courant léegi fu mu toll fi mu nekk am nañu bi may laaj deuxième mandat amoon nañ fanweer ak ñett parewul programme nañu fanweer yeneen fanweer ak benn ci programme bu ñuy wax PAMACEL boo xam ne mu ngi doxal fi may wax ak nii demoon dëkk ba di nga dëkk yoo xam ñu ngi ñu ngi samp poto yi fi may wax ñu ngi nii ak yow waaw fanweer ak benn boo ko booleeg fanweer ak ñett nekkul juróom benn fukk ak ñeent kon maa ngi njort ne bu programme boobu yeggee ñaar fukki dëkk ci juróom-ñetti fukk ak ñeent 84 villages la sama commune am ñaar fukki dëkk mooy des yoo amagul courant waaw loolu loolu maa ngi ko def ci juróom-ñaari at li tax ma ne maa ko def xam nga du maire mooy def courant amul moyen yi waaye dama dama leen di faral di poser question ma ne leen fi bu ngeen doon am PCR ñu dem ankay ma ne om politique nag amul foon dina ankay am na sax ñu waxoon ne conseil président lañu gëm loo leen loolu waaw may ne waaw ñooñu lu tax ba 2014 muy juróom fukki at ak ñeent lu tax ñu góorgóorloo góorgóorlu ba mënuñoo yóbbu courant bu dul ci ñeenti dëkk waaye mbooloo bu ko wax ñu xam ne li fi nekkoon leneen la ba mu des liggéeyal askan kon sa objectif mooy village yi nga xam ne yu ci bari maanaam bu puso waddee sax. waaw ñu mën koo for te bari na fa nag fi mu nekk nii càcc ga incha allah ma commencé naa wàññeeku. te dina yokk. waaw sonal la sonal la sonal la kaw gi trop. très te indi naa fa gendarmerie nee na te suñ commune yi ci kaw gi bu ko am te lu koy presque pare na incessamment dinañ mm, ma indil poste rapproché bu gendarmerie ndax commune bi dafa yaatu sama commune rek mooy presque wu arrondissement bi bi ñeenti commune donc xaaju arrondissement bi. Mhm. sa sa sama commune boo jëlee ndox. de réaliser naa li ñuy wax accès universel à l'eau amul benn ci juróom-ñetti fukki dëkk yi ak ñeent bu amul ndox. donc Kaolack bi moom neexul moom. waaw mais ñun suñu kaw gi am ndox d'abord moo doon problème bi. léegi fu ngeen ci toll. mooy dëkk yëpp am nañu ndox. sans exception. waaw sans exception li li li li may def tey mooy ci mandat bi su ma defee daal ci wàllu ndox xam nga lay doon. Mhm. mooy li ñuy wax extension. maanaam nga lotisé moom ay quartier yu bees. Mhm. nga war fa yóbbu ndox. mais bu dul loolu accès universel à maa ngi suñu ak suñu commune mooy P ci département bu Kaolack te loolu maa ngi ko commencé 2014 préscolaire laa commencé. élémentaire gratuité des fournitures moyen secondaire bokkul ci samay compétence parce que conseil départemental la bokk mais xooluma la woon fay def appui yu am solo université fekk ma fa benn subvention maa ngi commencé deux millions cinq léegi maa ngi ci sept millions cinq cent mille par année pour xale yi mën a am. fu ñu nekk fii Dakar bi maanaam ñi ci néew doole ñi nga xam ne seen parents yi amuñu euh, doole boo jëloon beneen domaine jeunesse néew na dëkk boo fay dem te amul terrain bu ñu aménagé ak i potoom ak i fii ah, léegi de football moom ñëpp ko bëgg ndax Sénégal moo ku coupe d'Afrique ah jeex na stade municipal commencé naa ko te maa ngi euh, taxawal maa ngi waaj taxawal li ñuy wax euh, équipe fagnon équipe communale nga xam ne dañuy def sélection ci équipe nawetaan yi fa nekk nga xam ne dañoo bari. taxawal benn club benn club jeex na pour commune bi. nga xam ne bu ñu góorgóorloo mën nañu dem ba ci niveau yi ci kanam division. génération pour jàppale exact loolu xam nga gis-gis moo koy indi. si si. du ma ci yem loolu du fu ba rek parce que dama ne am ñu fay def ant bu stade municipal bi pare c' est pour que ñu mun a def basket ñu mën a def volleyball mën a def volleyball. ñu bëgg def làmb parce que ñu suñu zone moom dañoo bëgg làmb am salle de musculation di fa def seen haltère ak yooyu xam la kooku doon soxla ñëw kaw la maanaam daal lu lu lu am ci taax yi dama ko bëgg a yóbbu foofu fibre optique bu ngi waaj a ñëw foofu maanaam lu yombal connexion internet loolu pour lan hôtel de ville bu bees am nañ ko léegi mu pare poste de santé bu bees poste de santé yëpp am ambulance bi ma fa ñëw amuloon benn ambulance benn on a post de santé on a quatre ambulances si am nañu cinquième post bi mu ngi dat mais léegi mu pare. Mhm. wutal naa ko ambulance xaar. te pareegul te pareegul xam naa ne fii ak deux ou de nañ ko inauguré. Mhm. donc ci santé ci santé googu monsieur le maire. waaw laata nga ci jéggi. Mhm. gis nga fan yii yëpp. actualité bi ci wàllum santé ab jigéen bu war a bu wan lor war a dem mucc ji. accès bi nekkoon lu metti lool ci moom euh, yéen ñi nga xam ni yéenay dëkk parce que mbir mi Louga la xewee mën na bañ a am mën nañ xewee Kaolack sa diwaan ba est-ce que yéen pare ngeen pour renforcer tey jumtuwaayu euh, fajukaay yi ci bërëb yooyu. waaw man nag dama ci profité ginnaaw ba ma masawoo ak njabootam. <laughs> jigéenu Sénégal. ndax mën naa wax ne ci ñoom la euh, nattu boobu dal masawu askanu Louga yëpp te jàll bu loolu paasee damay bokk ànd ak ñu bari wax dëgg yàlla ñaawlu yenn doxalin yi defe naa du man maa ko wax gëstu yi càmbar yi muy enquête yi ak mesures yi président de la République dem jël mooy euh, euh, daal di fa jële euh, ki jiite woon hôpital bi daal di aj noonu ñu ko mën tuddee lenn ci personnel ba pour dire loolu moom moo wax loo ni kon seen faute la ndax bu càmbar bi indiwuloon loolu kenn du leen daan moo wax ni li yor ci tubaab c'est la face visible de l'iceberg tubaab naan c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase maanaam mbir mi dafa fees bu doon nabit dafa feesoon ba rembet donc bu bu bu feesee ba rembet ak ndox benn tox gis nga ni mu bu ci dalee ndox mi day tuuru kon loolu la maara di taali li del soxna astu loolu rek la wone waaye loolu ay la yéwén bari na fu mu am ndax man waxuma dégg naa teguma ko ci dégg naa bari na lu ma ci dund man ci constat ci gis kon maa ngi ñaawlu loolu di ñaax personnel médical liggéey bu gën a noble boobu ci am ci yàlla am ci nit ñi man gisuma ko ni bu gën a noble boobu kon maa ngi leen di fàttali li nekk ci seen sermon d'Hippocrate boobu ñoom médecins yi xam ne hmm. dañuy waaj waat balaa ñoo jël service hmm. ñu topp ci ñoom it bu ñu waatul it ñu ngi ànd ak ku waat kon xanaa jël nañu engagement wu wàccoog li ñu wax hmm. mooy taxaw nañu ci yërmande si lu ñu xaarul dara dimbale leen ndax gëm bu ñu gëm seen liggéey ak yu ni mel maa ngi leen di fàttali loolu di ñaan ñu gën a delsi ci loolu ndax nag vraiment bëri na lu des te am na ku ma dégg mu koy wax tey mais loolu dafa doyul comme gëm naa ne lépp matut waaye gëm naa ne effort yi nguur président Macky Sall def ci wàllu kër docteur ci ay jumtukaay ci d'abord ay bërëbu fajukaay d'abord ay hôpitaux poste de santé case de santé ci ay jumtukaay équipé bërëb yooyu ci ay ambulance même bu ma jotee bu nguur man. Uh-huh. ndax ji ma wut maa ko wutal sa bopp. li mu joxe ci a ci réew mi kenn xamul nu mu toll ak li ñu recruter ci personnel. Uh-huh. xëy na mën na ñàkk doy nag ba léegi mais bari na maanaam effort yi nguur gi def. Uh-huh. tax na ba mënoo jël comme lay ne dafa am condition yu ma manqué ba tax mënumaa wàccoog leen parce que boo seetloo manquement yi am jotewul dara ak problème moyen waaw ndaw su feebar. wala mag mu feebar wala xale bu feebar ñëw en urgence waaw kon di sa condition de travail lan la jotee nga dalal ko ci jàmm ubbil ko sa kanam. kon kay accueil bi mooy problème. ci la bokk te feebar man du ma médecin mais ñoom nee nañu une partie feebar c'est maanaam benn partie feebar ci ci wér ci ci wér gu yaram la waaye benn partie bi ci bopp la nekk. Mm-hmm. da nga gis sax ko la ne man eh, diw su ma de ma ma mère waxin la rek néew ma amul sirru bu nekk ca ñaaram ba mais le fait que aussi mu gëm ne bu ko diw moccalee mu wér loolu aussi dina participer ci li koy wér lool waaw kii soog a yegg si nekk ci ak métti nga dalal ko dalal bu métti maanaam ñàkkee ko kersa wala nga sàggane ko mais kooku yaakaaram day gën a tas xolam day gën a jeex loolu rek stress boobu rek doy na ci mara di taal leneen dab ko ca. ma jàpp ne euh, accueil boobu euh, kenn du ci fay accueil boobu cherul. nekkul lu jafe kanam gu ubbeeku la rek ak dalal. nit ñi ñeme la ay nit ñi ñeme la. et am yaakaar ni dinañ wér. am yaakaar ni. Mm-hmm. dinañ wér. ndax wax nga leen ko wala boog dalal nga seen non ma non di du dara ça ça va passer kaay on va xaar tuuti euh, sage-femme bi ñëw wala xaar tuuti médecin bi ñëw dalal. xelu boromam ba ci faj ko sax soog koo fayu man mënu ma wér dama jàpp ne droit universel la maanaam ñëpp a war am droit ci am wér-gu-yaram wér-gu-yaram wékkuwut ci nga am milliard wala am ay million wala ay centaine de mille man loolu laa gëm man boo amul dara da nga am droit ci wér. war nga mën a nekk koppar. mais exactement donc génn condition yi dafa nit bu ñëwee ñu faj ko. taxaw ko voilà bu ñu paree nag. ni ko ah lii de war ngaa mën a wàccoog moom. Mhm. pour keneen ku ñëwaat ci condition yi nga ñëwee fekk fii luñ ko toppatoo noo koy mane am na hôpitaux yu koy def borom këram ñëw ay mbokkam ñëw. Mhm. ñu ne waaw léegi nañ joxe di dañ dugal lii fii ak weer wala ñaari semaine yi dañ dugal lii ñu seet ni ñu ko ni ñu ko fayee parce que lan moo tax ñu ne ministère de la santé et de l' sociale. Mhm. santé dafa nekk domaine bu social d'abord maanaam euh, laante biir ak dimbalante moom la àndal kon loo ci dugal rek yaa ngi ci leneen ba mu des santé kon suñ bi moo taxoon ma ne mhm. maa ngi fàttali ni côté boobu bëri na ay manquement akay te akay nag xamu ban pourcentage la waaye am na wàll bu rëy ci liy wérloo ci feebar te jaaxle mhm. ma bëgg euh, fàttali ko sama bopp fàttali personnel de santé ni seen métier loolu la laaj nañu wàccoo ak pour que li ñuy am déjà mu mën a lew ndax lii jënd ko yóbbu seen njaboot yi dafa doon lu lew te loolu ñàkkul nag euh, du ma oustaz du ma imaam waaye xam naa ne euh, du mënta lew te ku sa yoon di dundee di dundalee sa njaboot lu lew exact ñu bëgg daal loolu ñu gën cee bàyyi xel ba lii am wax dëgg yàlla bañatee am ndax yàlla yàlla bay sa tool te dogal yàlla boo dégg ñuy wax boo fa demee fekk fa tànku nit mm-hmm. donc ma ma jàpp ne daal ginnaaw ba ma regretté li xew comme sénégalais yëpp euh, euh, euh, jaale njabootam ñaan suñu borom mu wàcce yërmandeem ci moom mm-hmm. maa ngi fàttali personnel de santé na liggéey bu noble mm-hmm. la am ndax ñun ñuy nelaw ñoom ñuy veillé lu ko gën a noobul amul waaye damay fa damay daanale foofu moo di ni bu ñu fàtte ni li muy metti metti ñoom ñoo ko tànn foogu ma ne nit dafa dugg doon infirmier wala sage-femme wala médecin ci ñàkk pexe mm-hmm. man gëwuma loolu dama gëm ne ñoom ñoo ko tànn parce que dañ koo bëgg même bu la ci ñàkk pexe yóbboo day daal yi doon pexe ci yow. ndax wolof moo ne ñàkk pexe. pexe la kon boo ko tànnee ba nekk ca. Mhm. mais fexe nag nga wàccoog la waaye di liggéey mbir mel ni bëggoo ko mel ni la. Mhm. te wàccoo liggéey ba génnoo ci yaa di di di def loo xam ne dafay yàq. loolu daal mën na mën na mën na ñàkk kon ginnaaw bi ma leen jaajëfalee ñoom waa Kër Docteur. Mhm. leen ci li xew ndax naa ne ñoom it xëy na ko woon. metti na leen metti na leen maa ngi leen di ñaaxaat. di leen fàttali lu ñu xam moo ñu gën a bàyyi xel li ñu sartante ak yoon bi ñuy dugg ci wàllu santé nañu bàyyi xel li ñuy am te mu war a lew nañu bàyyi xel ni am nañu ay mbokk te kuñ ci traité woon sa mbokk comme ni ngay traité mbokk jaambur yi du la neex waaw ah, lii daal. Euh, bëggoon naa ko cee. cri de cœur la daal maanaam wax dëgg yàlla. Ah. waaye nag man. Mhm. Euh, balaa ma ko fàtte yàlla defal na ma sutura wax dëgg yàlla euh, man fa ma nekk sama commune. waaw que dialogue ñu ko fay. waaw waaw man moom. bu la neexee sax suba parce que ma koy faral di wax journaliste yi nag ma ne ngeen taalal ñu micro ñu wax ngeen teg ko ci rajo bi wala ci télé bi baax na ñëpp déggandoo ko waaye day baax mu am diir. ngeen ne poymet dem fa ñu dëkk jël seen micro au hasard talal ko nit ñi kon di ngeen xam loolu dafay dafay baax daal dëkk yaa nga fa wax naa ko fi benn journaliste quatre-vingt-quatre quatre villages naa jox liste dëkk yi nga dugg ci biir commune bi ñu coché sa quelques villages ne fan la ñu la koy tegtal ngay raam di jàdd kon ba di gaara ci penc ma wax ak nit fekk man neewu ma fa kon di nga xam li xew boo gisee ma wax la loolu nag mooy man tay quatre postes de santé yi amul kenn ku ci mën a am lu mu jàmbat loo nga xam ne da daf koy daf tey wékku pour wax ne moo tax service bi manqué ndax personnel nga mën a wax personnel ba fa ne fekkoon yokku naa ko ñaam fa fekkoon amélioré naa tuuti seen motivation muy benn garab jotaa somp produit pharmaceutique ak produit d'hygiène ful naa ko xanaa ñett yoon lu ko ëpp ci budget ak lan nee la poste bu nekk tey am na ambulance ak lan campagne bu ñuy def muy vaccination ay sensibilisation may joxe du mairie bi parce que mënuma budget ci loolu ci mairie bi hmm. may génne sama poste joxe kat bi laa joxe motivation maanaam mooy ñuy defee campagne kenn daal ci gàttal ci poste de santé yi foofu doleen ñun lii lu ñuy jàmbat la lu nit mën a tudd muy jafe-jafe bu nit mën a tudd mooy te wax nañ ko maire te maire defu loolu maa ngi wax ci rajo lay waxee loolu amul tànkam lu donc wax dëgg yàlla euh, gëm bi ma gëm li ma wax ci njëlbeen ci wàllu santé hmm. moo tax ma def loola la santé avant tout dama faral di wax nit ki bu wéree lay am ay soxla mais bu wérul ab soxla la am muy benn muy wér foo amee soxla rek dafa fekk nga wér mais boo wérul benn soxla doom kese rek nga am mooy wér kon wér avant tout moo tax ma jël santé boole ko ci samay priorité mhm. wala boog jiital ko ci samay priorité ba def ci effort yoo nga xam ne ci yow boo fa demoon personnel bi ak population ci seen bopp euh, dinañ na ko wax yow ma ca bëri na li may def ay évacuation man boo demoon tey dante principal CTO miin nañ sama tur yi lool te ci ëpp gisuñ ko mais sama njaboot ñoo fay ñëw day am cas yoo xam ne poste de santé ba mënu ko traité hôpital euh, euh, El Hadj Ibrahima ko traité ndax xëy amul spécialiste mu indi ko fii te évacuation yooyu ça mes frères laa koy def bu ñëwee may fay may jënd garab loolu euh, maa ngi sant suñu borom mi ma ko mën loogum di ñaan mu gën ma koo mën mm-hmm. ndax gëm naa ne loolu lu lu jar a def la daal. voilà donc. Euh, taxawu askan wi itam ci la bokk. ci wàllu wér-gu-yaram daal. ci ci ci la bokk waaw. ok ñu suñu émission gox bi di dalal docteur Macoumba Diouf nekk euh, maire bu commune bu Latmingué monsieur le maire wax nga fi presque secteur yu bari mais infrastructure commune bi fan la ci tollu tey ndax am na yokkute wala émergence bi ngay wax léegi réalité la biir Latmingué. waaw. ndax nekk na réalité loolu bu yeggee ci laa koy mën a wax waaye ndax mu ci yoon wa waaw loolu lu mu tekki mooy infrastructure la ca jiitu mooy bërëb pour man ji nit ñi di fajoo am nañu quatre postes de santé mm-hmm. yu nekk ci wax dëgg yàlla état bu acceptable. am na bu ci am bu yàggul jafe-jafe muy bu kër Ali Bassine wax nañu ma ko incha allah balaa yàgg yañ fa tudd comme jafe-jafe muy ay locaux yu ñu war a réhabilité yooyu des na ko def mais boo génnee loolu ñu ngi en état loolu muy benn ñaar. am nañu poste de santé bu bees. ñu koy tabax léegi mu pare. boo dee infrastructure nga yokk ci sanitaire wala dans domaine médical. amul lu ñuy lu ñuy jàmbat nga jël euh, ndaw ñi am nañu stade municipal travaux na. am nañu foyer des jeunes maa ngi def euh, beneen DER. ci dëkk bu ñuy wax Thiawando parce que bii amoon. ñu ngi koy élargir di ko moderniser mooy ba nekk la nekk ci boppam. mais mhm. sinon am na beneen bu ma bu may tabax nii ci dëkk bu ñuy wax euh, Thiawando. Euh, nee léegi nii li ëpp ci dëkk yi aménagé naa fa terrain de football mooy terrain suuf yi terrain nii ndax mënoo def stade partout. Mhm. équipé ko loolu mooy ndaw ñi. Mhm. dama jàpp ne ci wàllu infrastructure ndaw yi lu mel noonu euh, la ñu gën a soxla ndax mooy permettre mu nekk bërëb yi ñuy dajee mhm. pour doxal fa seen ndaw mhm. ak seen loisir nga jël ci wàllu njàng maa ngi ci infrastructure ba léegi mhm. ay salle de classe culture ay miru d'école def ay latrine xamul ban quantité laa ci def du jeex du xaj ba fi mu nekk nii fexe ba ñu ba ci am abri provisoire ci laa ne waaw jeexul nag jeexagul am président mu fay am ba léegi waaye ku nekk xam nga léegi 2014 ak maintenant wàññeeku na lool te sama objectif mooy ni ko nguur gi amee fii ci ministère bi. Mhm. mooy zéro abri provisoire mooy sama objectif. lii maa ko def ci moyen wu mairie bi par exemple fonds maa jox dara beneen appui ci mën na maa jox dara mhm. mhm. def ca lii maa ko defal sama bopp. ci sama moyen wu bopp. Uh-huh. lii ay partenaires ñoo ma jàppale ma def ko comme partenaire bu ñuy wax Bulldon moom da ngay joxe matériel mu joxal la li des. Uh-huh. donc presque bu dinañ participer c'est autour de vingt cinq à trente pour cent soixante dix pour cent ñoom ñu def ko donc kon gis nga ne. xeetu solution yu bëri lay utiliser pour defal ay salle de classe. Uh-huh. dama ca def bëri na pour defal ay latrines. pour clôturer ay école parce que xam nga suñu ñun ci kaw gi euh, école bi bu nekkee ci ndànd foy foy jur gi di jaar sàmm yi di romb day nekk danger par rapport ak xale yi donc kon maa ngi ci euh, infrastructure ba léegi nga ñëw ci wàllu transport mosu ñu am gare routière uh-huh. tabax naa gare routière nga ñëw ci wàllu administration tout court maire ay locaux yu yem pour ne pas yu ndaw lañu am comme maire yi yëpp. Mhm. léegi am naa hôtel de ville digne de son nom L plus un. donc euh, yaa ngi ci infrastructure ba léegi ba léegi ci infrastructure ci wàllu sécurité euh, installé naa benn poste de gendarmerie loolu yëpp génn guloo euh, infrastructure. Mhm. am nañ fa aussi benn usine bu nar a ay déchets muy centre intégré de valorisation des déchets day bëgg di transformer mhm. déchets yi bu dee matériel yu dëgg yi dëgër yi bant yeeg xob yeeg yooyu mu def ko énergie plastique bi mu recycler ko mhm. euh, déchets yu tooy yi ñu def ko compost. permettre ndaw yi ñu mën a am xëy. Eh, ñu mën a am xëy en tout cas usine bi prévoir na trois cent emplois mhm. pour euh, euh, jël ko loolu usine bu mag la kon ñu ngi ba léegi ci infrastructure kon euh, euh, vraiment boo dee xool euh, bu dee agriculture mm, bu yàggul rek am nañu benn nu tëddi magasin de stockage mm-hmm. pour jigéen ñi bu dee infrastructure ba léegi am nañu foiraay mm, mm, bu war a ànd ak maanaam marché à bétail genre mm-hmm. daral bu war a tabax bu moderne mu ànd ak mu ànd ak kii ñu koy waxati waaye abattoir. ñu war ko def marché de hebdomadaire ñu ngi koy waaj a démarrer loolu yëpp ci domaine infrastructure la la dugg kon daal gis na ni. wàllu infrastructure xëy na lépp matagul loolu moom na leer parce que commune bi dafa ay jéego am na yu yu yu sore sore sore hmm. yow nga xam ne fa ñu toll ak fa ñu fa ma fekk commune ba. Hmm. sore na lool. bu ci bu doon le dixième wala le centième bi di ma def. Mhm. dafa amoon ci mandat yi ma jiitu. Mhm. kon tey daf nga day mel ni parent. waaw mais monsieur le maire tey euh, ci mairie ba commune ba na nga koy doxalee est-ce que wàllum transparence ci gestion bi nekk na loo xam ne loola yitteel la. waaw parce que man yàlla def ma defal sutura ma teel ci ndimbalal suñu borom ma teel a ci waxin bi may nekk déjà ci terrain bi ci wàllu gëstu parce que man gëstukat la chercheur la ci mhm. ISRA mosuma utiliser xaalisu ISRA pour liggéey xaalisu ISRA salaire lañ ma ciy fay waaye yàlla ma na wax dëgg ak xarañ ubbil mooy ay buntu mhm. bu loolu ñuy wax fonds compétitif dama yàgg di def ay projet yu ay bailleurs ak ay partenaires di financer. ma bokk ak ay scientifique yu ci réew mi wala yu bitim réew. donc maanaam teel naa commencé gérer déjà ay projet nga xam ne day am ay chartes ay procédures administratives et financières te lu bokk ak résultat scientifique bi nga ci wut kon xam man teel naa gérer. ma jóge fa nekk conseil technique ministère. c'était un ma jóge ci loolu conseil technique numéro un laa nekk ministère de l'agriculture di les décision du ministre. Mm-hmm. kon xam nga aussi euh, il faut que loolu dëppoo ak yoon. Mm-hmm. ma jógee fa nekk directeur général ISRA ñaari yoon loo xam ne wax dëgg yàlla mosu fa am jóge fa nekk directeur de l'horticulture kon xam nga euh, wax dëgg yàlla bu at yi bëriwul lool it. Mm-hmm. yàgg naa nag ci gérer ci gérer. maanaam xam naa luy gestion daal. moo tax xëy na mën a métti. voilà donc vraiment détail la ci man daal gérer mairie. ok voilà donc miin naa procédure yu mel noonu. Mhm. miin naa yoon te it la fa ne dafa fajut dara gérer ko yomb na moo waral sama xeex plutôt mooy am leneen feneen. Mhm. pour yóbbu fa waaye la fa nekk moom d'abord bëriwul mhm. euh, solo te buñ koy arbitrer ci débat d'orientation budgétaire askan wi lay déglu. de points prioritaires yi muy tudd. ca laa koy dugal. te loolu ay engagement la am nañu ay jeunes cadres dynamiques yu fa ne muy secrétaire municipal muy Samba Ba muy cadre bu bu xarañ macha allah. jeune la mais ndaw lu xam ndaw lu man donc man daanaka validé laay gën a féetewoo mais lépp daf koy préparé ndax xam na ko. jàng na ko euh, mu koy seq ak muy payeur muy service technique bu nguur gi nga xam ne. dina war a nekk conseil ci ñun di ñu gunge. Eh, tax na ba daal wàllu transparence moom. Mm-hmm. ak wàllu bonne gouvernance ni ma ko mën a waxee eh, vraiment eh, loolu c'est de mise. règle la ci suñu commune. Mm-hmm. ndax wax naa ne ko lu ñu xam la. Mm-hmm. ñaar bi ñëwuñ fa pour lu ñu am luñ faa ñëw pour nekk jaamu soxla yi suñu askan. réel su ma la nee xam nga ko. réalité bi ci tubaab bi indi laa xam mooy mooy bu bu dëggu bi xaw ma ci xaw ma ci beneen. mooy bu réseau bi nga xam ni Yewwi Askan Wi taxawal nañ ko benn collectif la bi nga xam ni ëmb na seen i maire ak président conseil départemental taxawal nañ ko parce que yàgg nañ ko annoncé léegi taxawal nañ ko mel ni kuy ñëw di mel ni ku naan AMS jàll leen fële ñoom ñu ñëw toog. Euh, moo moo tax tontu naa la moo tax ma ne la benn réel laa xam muy bii vocabulaire euh, wala boog grammaire bu tubaab indi boobu moom euh, day jéem niru niru <laughs> moom ba tax muy miime waaye wax dëgg yàlla amul lenn lu ci réel. Mhm. maanaam lu ci dugg daal. gisuloo njëriñ bi. déedéet dafa dafa teguwul sax ci dëgg teguwul ci lu yenu maanaam lu tax AMS 1958 jàppal bu baax nag. 1958. Mhm. lu jiitu suñu juddu. ñaari at avant ñu moom suñu bopp. ñun Sénégal dañ ko taxawal. lu mu tekki loolu mooy bañ koy taxawal ba nañu fi nekkoon maire te nekkoon xëy sax der bu xonq waaw ñooñu ñooñu war a gën a xam. lu baax luy jëriñ ci ànd mais loolu dafa yàgg te yokk ci loolu non seulement dafa yàgg mais yow mos ngaa dégg lii est-ce que dégg nga ñu ne est amoon na fi am na benn mandat bu ko fi guulee. c'est une première waaw c'est une première guulee ma ba léegi régime bu nekk jaar na fi àndante bu nekk jaar na fi. Mm-hmm. gis nañ fi président. Euh, Abdou Diouf ànd ak euh, président Ablaye Wade. ñu def seen i élection ñii am lii ñii am lële dañuy dem sax bu élection bu jub see Ablaye Wade génn nguur gi taxawee na le gis nañ fi Senghor dem ba jox ab juuf gis nañ fi Ablaye Wade jox président Macky Sall. maanaam xeetu combinaison ci politique. bu ne. am na fi te taxul kuréel ga mais ñoom ay kii itam amuñu liberté taxawal seen. benn kuréel non rek bàyyi ñëw rek bàyyi ñëw rek pour que euh, liberté moom xam nga tontu booba laa lay wax liberté moom waaye nag ci di def mais bul ba di def loo xam ne boo dee mu kalafit mën nañ ne di ngay def tegul ci lu kenn xam liberté moom moo war lu bëri am sax liberté moo tax ñu jël yoon teg. Mhm. am na yoo xam ne dañuy fàttali ne seen liberté mu ngi yem. fii eh, liberté ñeneen ñi commencé yow jàpp nañu seen liberté moom dafa war a xaabaabal amul limite. loolu tax yoon dikk. Mhm. kon boo ne liberté moom waxtaan bi dee gàtt ndax ñoom ñi ngi def loolu jàpp nañ loolu ci seen liberté la bokk. Eh, donc kon maa ngi doon wax ni régime bu nekk jaar na fi. Mhm. te kuréel googu yënguwul amul problème xam nga lu tax ko am parce que war association la c'est apolitique maanaam nekkul kuréel gu mën a def politique. déedéet muy benn ñaar. ña fay daje. ci ay parti yu wuute la bokk. kon boo fa doon def politique noo koy defee ñett c'est de maires maanaam kenn ci ñoom nekkul patron keneen ka kuréelu ay patron la waxin. maanaam kuréelu ay kilifa la ku nekk commune ba nga yëlif yaa ko yëlif kenn amu fa sañ-sañ kenn amu fa dogal. ñi nga am ne situation bi amuñu benn autorité ci yow maanaam amul benn hiérarchie ci waxin dëgg wax ju baax président ANS yëliful maire yi def leen jiite ci seen coobare ma président ANS yëliful yi daf leen jiite ci seen coobare ñoom ku nekk ñoom jiite doon kilifa fa nga fañ la doyloo fañ la woteel mm-hmm. waaw kon fu problème ne àndante bi c'est plutôt àndu solidarité la maanaam àndu jàppal ma jàpp àndu dimbalante. ci lan ci xam-xam côté renforcement de capacité ci expérience ci même sax dimbalante bi parce que communes yëpp yemuñu doole di am na communes yoo xam ne wax dëgg yàlla am lu leen yàlla mën la am communes yoo xam ne mënuñu mais bu ñu gisee ci biir association bi. Mhm. di àndante jàmmoo bennoo yeneen di jàmm. Mhm. di nga gis ku dimbale moroomam. te du nguur moo ko dimbalee moom mairie bi moo dimbale beneen mairie intercommunalité ne ko jumtukaay pour pour lan la pour jàppal ma jàpp la. Mhm. intercommunalité pour ñu dimbalante la bu ñu nee intercommunalité nekkul nga indi benn ma indi benn déedéet mooy ku nekk la mu gën a jekku moromam mu indi ko ca ànd ba ku nekk la mu gën a moom mën moromam la mu gën a jekku mu indi ko ca ànd ba pour que ànd ba doon njëriñ ci ñoom ñaar ñëpp. Mhm. loolu mooy inter. communalité. mais mais mais mais mais mais mais mais tey ANS inter intercommunalité bu tudd intercommunalité la parce que daje yi solidarité. Mhm. daje yi eh, eh, jàppalante dama jox exemple rek ci mandat bii di waaj jeex. Mhm. bureau bii fi nekk parce que renouvelé guñ ko. Mhm. président bi APR la bokkoon mooy Aliou Sall ay vice président. fukki vice président ak ñeent la am. région bu ne dafa tànn kenn. pour ko. ne mooy vice président wu Aliou par région. Mhm. maanaam bu fi nekkut walla buy décider. Mhm. ñooñu lay concerté woon balaa décider jeexul secrétaire général ba AFP la bokk. bu AMS bii may wax nii. trésorier général bi PDS la bokk. bureau bii nga xam ne renouvelé guñ ko moom laa lay wax nii bi fi nekk nii. amul problème kon. bu fekkoon tey ñu toog ci bërëb. di nas ak noo ci bu ñu waxee ñett bokkuñu parti doo ko gëm. wallaahi lazim donc li may wax lu dëggu la lu wér la. Mhm. parce que xam nañ intérêt ñoom ñëpp moom la ñu àndee ànde wuñu pour kii yëlif kële ànde wuñu pour kii di décider moom rek mënul lekk bureau bi 48 membres la wax naa la ko 14 mhm. vice président président bi ci boppam secrétaire général trésorier ak ñaar fukki commission man mii yor naa ci benn commission ñu koy commission décentralisation waaw kay beneen bi it may daanale mooy dégloo yi ñu kaas waxin la yu ñu laaj président ci journée nationale de la décentralisation parce que ko fàttaliku. Mhm. statut de l'élu waaw nañ décentraliser le BCI. Mhm. ak bëri na yoo xam ne président ci boppam. addu mhm. na ca wax gouvernement am ne rek ne na ngeen àndante ak maire yi loolu ñëpp a ngi koy fàttaliku. loolu nekk benn mën a am kaddu moo yombal loola. si waaw kon kon su ma tënkee foofu sëñ bi. Mhm. kon xanaa maa ngi lay démontrer ne taxawal beneen kuréel sur une base purement politicienne. Mhm. wéru moo tax ma ànd ak président Adama Diouf. Mhm. xaw ma ndax suivre nga ko wax na ci presse bi. ne ne ne ne xam naa ay njàttaar lañu du ñu annoncé li ñu wax waaye bu ñu ko annoncé du ñu am sax récépissé. mën nañ ko jaarale feneen. waaw waaw waaw non maa ngi ñëw yow yaa ko wax jaarale feneen loolu mooy lan mooy kon tricherie mu ngi bëgg am maanaam lii la fii laa jëm mais fii laay annoncé waxuma ko rek ñoom ñoo ko wax li tax ma ko wax mooy bi président Adama Diouf waxee loolu dégg naa ministre Habib Sy bi ñuy invité woon mu ne ñu nag ay njàccaar lañu maanaam xam nañu affaire yi quoi xam nañu lu ñuy def pour loolu kenn mënuñoo tere am. suñu association. waaye duñu annoncé li ñu wax ci télé bi de ne ne ay maire Yewwi je les man nag wax ma ñoom ñoo ko wax comme ni nitu presse nga. Mm-hmm. war nga koo dégg enregistré ko sax xam naa fenn. Mm-hmm. dañ ne ay maire yu bokk Yewwi ñooy créer seen association. Mm-hmm. kon du ñu am récépissé kon association kon lañ nar a def mooy. Mhm. leneen lañ nar a wax. Mhm. pour a am récépissé. waaw waaw ndax loolu jàpp na jàpp na ci ay mag ay responsable nit ñuy wax bonne gouvernance maanaam est-ce que maanaam euh, bukki bu muuroo deeru. Mhm. gaynde loolu kilifa bu responsable. waru ko def te loolu lañ nar a def buñ bëggee am. récépissé euh, récépissé donc. ma bëgg a ni. Mhm. kon ñoom ci politique lañ ko bëgg a lal te kuréel mu ñu koy wax association. rawatina mhm. association d'élus. mënul mhm. basé warul mën loolu dafa waroon sax. ci li ñuy woote li yoon woote waaw dégg nga la station des des des notaires xaw ma des. Euh, waaw defe naa ñoom la non wala des juristes. waaw euh, def nañ déclaration. ñu loolu war mën a nekk. rafet bi wax nañ ko mu jàll léegi euh, mandat bi di jeex ñu war a renouveler bureau bu association des maires du Sénégal Aliou Sall moo nekkoon maire bi léegi mënu ko nekkaat ndax am yow candidat nga. waaw loolu ñi ko war a yëg yëg nañu ko euh, euh, mais à la mooy am naa yéene bokk ci ñi bëgg bokk ci ñi laay association bi. lan moo waral loolu. li ko waral mooy ay la yoon c'est l'occasion d'ailleurs ma gërëm ci bu baax président Aliou Sall ak bureau sortant bi. Mhm. wax dëgg yàlla ci cër bi ñu ma ci joxoon. ba mu may ma xam nga njàng du wees mhm. te expérience ci pratique lañ koy jële ba mu may ma ma gagné ci expérience ci diiru juróom-ñaari at mhm. yàlla xam ne lu lu lu rëy ci wàllu gouvernance locale mhm. wala gouvernance territoriale fii ci réew mi ak ci bitim réew ma jàpp ne expérience boobu ma am wala njàng boobu ma ma jàng te mu sosoo ci pratique mu sosoo ci nekk bi ma nekkoon ci bureau bi ak responsabilité yi ma ci joxoon yaakaar naa loolu war na gën a mën a jëriñ association bi ci niveau ya gën a kawe loolu moo waral loolu am nga si njàppandalu parti bi loolu nag moo tax ma ne la candidat à la candidature donc maa ngi ciy déglu foofu laa naroon ñëw ak yow mhm. euh, suñuy kilifa ñun ñëpp mooy président Macky Sall donc aw mooy fixation maanaam nekkul loo nga xam ne euh, daf ma jaral yenn yi euh, dama jàpp ni boo amee njiit doyloo ko am ay nawle ñu doyloo seen njiit war ngeen maase doyloo ay décision mm-hmm. waxtu bëgg nag bu jotee xam nga bëgg moom kenn mënut a wax ni amuloo droit bëgg loolu moom foo ko dégg rek borom mu ngi bëgg a jàdd yoon nag kon waxtu bëgg bu jotee ku nekk sañ ngay wax ni man su ma sañoon bokk ci ñuy limaale bu ñuy waree joxe lii buñ ma joxee ma jël ndax nag wax dëgg yàlla kenn du ne waru koo yore ba pare teg ca argument bu voilà man loolu laa gëm man lay lay bu taxaw doo ko ci teg xanaa nag mën a wax rek ay waa ji ma su ma sañoon du doon moom sama bopp moom ma gën a su ma doon mu doon man. am ko mais munoo ma. amal ay grief ba nga ne man waruma ko mën a doon te man loolu moo ma soxal mën mbir jekk ci biir man ku gëm yàlla aussi taxul loolu rek doyul daal euh, dafa am yeneen aspect yoo xam ne c'est plus stratégique. Mm-hmm. maanaam dafa am yeneen considération yoo nga xam ne ki leen jiite. Mm-hmm. moom moo ko moom rek moo ko ndarket moo ko pe moo ko moo ko xam moo ko am bu boobaa ñun ñi bëgg xam-xam ba moo xam ci li ci suñu kanam ak bëgg-bëgg fi mu bëgg euh, réew mi jëm ndax xam na ne collectivités locales yi ci moom la ñu bokk comme collectivités locales yi démembrement état lañu dina ko pose ba mu ne ah jàpp naa ne profil bii de. moo gën jàpp nga ni yaay mérite profil bi non loolu moom mënuma ko wax parce que loolu critères ci moom la nekk moom président maanaam moom moo mën a wax mhm. euh, kan la ci jamono ji mhm. profil am gën ah. mais man daal sañ naa wax ne su ma sañoon tout cas ñu limaale ma ci ñu bëgg ndax bëgg naa ko jiite. am na solo donc loolu loolu loolu rek laa la laa mën a wax mais. Mhm. doguwuma ci. fekk. président di addu ndax moom laa cay déglu maanaam. Euh, yéene bi daal. Mhm. faraayam ci gàttal. xëy na nag du ma mhm. du wolof lépp mën naa ñàkk leer waaye ci yéene bi daal. Mhm. laa la la la laa yemagum. te maa ngi la wax rek benn mbir euh, génn nañ ci waaye bëgg ma bëgg naa koo tënkee. ci lu jëm ci suñu mbokk yooyu nga xam ne dañu dañuy seen kuréel. dafa am lu reer lu ma ci dégg. muy beneen mbir boo xam ne bëgguma ko gënul ci kilifa. ñu ne station seet boobu dañ koo ubbil ñëpp. xanaa yéen da fa bokk. mais ñun bu fa duggoon station bi doon AMS ak ñoo leen ëpp <laughs> kon ñun bu ñu jëlee ay carte mhm. ñu doxal démocratie rek kon faru sax ñoom duñ duñ duñ ca faru. boobaa yéenay jiite xaw ma wax. déet tigi boobaa yéenay jiite. waaw maanaam dama la bëgg a woon rek ni li ñuy wax. Mhm. tegul ci lenn. lu wér a wax bi ñuy wax ne ubbi nañ ko ñeneen ñi du dëgg ci ñoom parce que loolu bu bu bu doon dëgg bu ñu ko doxalee ñoom seen bëgg a am kuréel. day taxu te bu am mun nañ sax sàmpuwaat tur bi tuddee ko AMS tout court. <laughs> mu jeex waaw kon kon maa ngi lay démontrer ni. Mhm. ci caaxaan rek la nekk. te loolu nag réew soxlawu ko daal. waaw bu waxtu jotee waxtu wut jotee. Mhm. jongante jeex na daal ba jongante bu bu bu ba askan wi. Mhm. man koo tànn ñi ñu dénk. Mhm. ca la jeex li des. mooy liggéeyal askan kon nañu ànd def ko. jeexalee ko ci li nga xam ne moo jëm ci limu député yi 165 lañ wala dem 172 gis nañu euh, consensus suñu ci am amendement moom moo ci mën a mujjee am ngeen mujjee ko indi léegi statu quo la ñuy wax euh, ñàkk waxtaan baaxul de. waaw non statu sax amul wax dëgg yàlla ndax amendement bi nga wax tax na ba defe naa mu ngi jublu ci wàllu répartition yi nag. Mm-hmm. naka juróom-ñaari député yi ñu ngi koy. répartir loolu lu bees la amuloon innovation la. Mm-hmm. te pour ñëpp ci yem loola kon innovation am na kon man dinaa rafetlu lépp bi may njëkk a rafetlu mooy démocratie bi ñu doxal ndax bu doon majorité rek lañu wut que nag ñii def proposition kon bu ñu doxal lim rek du nekk ni sotti na waaye dañoo gis ni lu waxtaan bu jubóo lu toll ni li mu député maanaam enjeu bi nature mesure bi solo yi solo décision bi dafa toll foo xam ne nekkul rek majorité lañu war a wéeru pour truc li ñuy wax mooy waxtaan bu jubóo mooy même ñi àndul ak majorité bi ne ay la yemen lii moom la nañ ciy maase ànd loolu la majorité bi bokkoon loolu amul ñu dellu ci ginnaaw def amendement mais loolu lu war a rafetlu la loolu cas d'école la ci démocratie luy taaral démocratie la kon man damay jaajëfal majorité bi à l'assemblée président Moustapha Niasse d'abord naa ne doxalin boobu génn ca ndax mu jiite euh, euh, institution parlementaire bi di ji jaajëfal benn groupe Benno Bokk Yaakaar. Uh-huh. bu majorité bi waaye di jaajëfal it eh, wax dëgg yàlla député yi. Uh-huh. yëpp si seen taxawaay mm, jàpp naa ne daal bu nii yàggoon. Uh-huh. léegi tey ñu toxal leen dëkkuwaay ndax fañ leen dëkkal nag. du fa gën. waaye pratique yu mel nii moom. doxal ñu mel nii buy bari. wax dëgg yàlla léegi ñu toxal leen dëkkuwaay ci waxin maanaam ñu ñu ñu ñu xam ne vraiment askan wi lañ fi nekkal. ñu ngi liggéey te démocratie. Mm-hmm. la ñuy dundal. Mm-hmm. voilà loolu daal man vraiment euh, rafet naa ko bu bu bu bu bu baax a baax. jeexale ko ci wàllum parrainage dégg naa da ngeen di ut ay parrainage ba euh, xañ ñeneen ñi sax parrainage euh, ku ngeen gis rek parrainé ko opposition bi xalaat xanaa naru leen leen bàyyil dara. pare naa parrainage dañoo jàpp na ci procédure bi la bokk wala bokk ci processus bii mëne ci élection ñun nag élection lu ci waay di mooy wane ne maa jiitu maa ëpple li ëpp ci askan wi mhm. man la àndal te cappaandaw la loolu la ñuy mhm. mais lii ci lii déterminé cappaandaw la mhm. ci la bokk ndax boo amul naa bu doy doo mën a nekk candidat sa liste du mën a valable mhm. te sa liste bu valableul mhm. lii li lii dal nit ñi mooy dañ naan balaa nga naan naam da fay nekk mhm. kon boo fa nekkul doo mën a doon majoritaire ah. moo tax ñu jàpp ne ci yoon woowu nga xam ne mooy moo jëm fa ñu jëm du ñu maye dara ñu def suñu élection ci misaal. Mhm. avant l'heure mooy. parrainage war na mën a déterminer mbir yi. Eh, très bien mooy ñu fexe ba majorité bi ànd la ñun parce que loo ci mën ci dégg nag ñu soo majorité ci réew loolu moom leer na. Mhm. pour que majorité bi ànd la ñun confirmer waat loolu pour législative yi mhm. ñi àndoon ak ñun te ku nekk xam li ko waral. ku xam ne élection locale beneen réalité la. Mhm. liste parallèle fii yaa ngi sax ñu nekkoon ci yeewi ñu ngi ñëw. Mhm. ci président Macky Sall gis nga ay yeewi. Mhm. yu mu recevoir si am na donc loolu moo lay wan ne réalité locale bokkul ak réalité nationale donc bu ko defee ñu paree le maximum. pour ñi ñu woteeloon ci législative yi. te woteel benn bokk yaakaar pare ne ko ñi nga xam ni. wuute gis-gis ci biir benn mbokk yaakaar. Hmm. moo taxoon ñu wote feneen. pare nañu. Hmm. ñi nga xam ne nekk ci yeneen list yi mosuñoo ànd ak ñun xëy na mais nekk ci yeneen liste yi circonstance locale rek moo ko war noonu mais ñun lañu am seen xol ñu mën a dellu si. Hmm. moo tax ñu war a am le maximum de parrain fexe nag ndax loolu mooy wax ji ba transformer parrainage yooyu ou yooyu en électeur. lu mën a nekk la. waaw lu mën a nekk la. dafa laaj rek ñi wataloon moom waxuñ ko xam nañ tax ñu watal ñu xam nañ ne mbir mi ñun la. mu laaj nag tuuti réconciliation remobilisation. mooy fi ci parallèle yi amoon ñu arrêté loolu. Kaolack moom bëri woon na fa ba ngeen woon sax euh, mairie ba conseil départemental ba ndax jàpp ngeen ni bi yoon itam. Euh, dana yomb itam dajaloo gi ak ba xam tey Macoumba Diouf euh, liste département bi bën la ko joxoon tabboon da nga ca dem. mais bien sûr man lu ma sama parti lu parti sama parti seet muy cër ba mu yaakaar ma ci su ma ko mënee dinaa ko def su ma ko mënul dinaa ko jéem. Mm-hmm. donc loolu moom mooy mooy tontu mais nekkul nag loo nga xam ne dama cay xaaju. fixation non non non vraiment wax dëgg yàlla ndax dama jàpp ne nekkul ci position yooyu sama askan. et askan mooy sama département. Mm-hmm. sama région au delà de ma euh, euh, commune. mais dama jàpp ne nag yàlla mën nañu dimbale ba li ñu nar a am fépp am fa ñun. Mm-hmm. mooy ñu inverser tendance mën na nekk. Euh, waaw lu mën a nekk la. Mhm. te man it wax dëgg yàlla am naa ci yaakaar bu mag. danañ ci liggéey. waaw mhm. ndax président moo ci njëkk a jóg gis nga def na tournée. Mhm. ñun ñëw na kaw la. recevoir nañu muy lu rëy responsable yi rafet rafetlu ko si l'occasion ma mm, gërëm ko ci tur en tout cas sama responsable politique gu commune sama benn bokk yaakaar commune. mais aussi benn bokk yaakaar bu euh, département bu Kaolack yëpp. ci ni mu ko defee vraiment rafetlu nañ ko recevoir ñu waxtaan ak ñun. Mm-hmm. Euh, euh, vraiment jaajëfal euh, ñi nga xam ne liggéey nañu ci yàlla defal na leen ndam. Mm-hmm. masawu ak encouragé ñi nga xam ne liggéey nañu. Mm-hmm. ne yàlla defalu leen ndam. woote. remobilisation affaire risque parole maanaam jafe-jafe yu sexuel yi taxoon ba kii jaar ni kii jaar ne mu ne nañ bàyyi loolu te ànd ndax léegi législative la maanaam mode d' élection wala type d' élection bi bokkul te mission boobu jàpp naa ne man réussir na ko. Mhm. ndax réussite bi maa ngi mu ngi jëkkee ci mission ba mu fa njëkk a yebal. Mhm. ñëw dëggal loola. Mhm. jàpp naa ne. Euh, mën nañu am majorité ci législative yi sans beaucoup de difficulté. monsieur le maire euh, Macoumba Diouf docteur Macoumba Diouf ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ni ngi nangulee émission bi. Eh, jërëjëf man maa ngi leen man mii maa leen di gërëm di leen sant di gërëm encore une fois. réew mi eh, FM di rafetlu bu baax liggéey bu am solo bi ngeen di def ci réew mi eh, ni ngeen koy defee wane na ne réew mi moo leen eh, ñor ñu leen di jaajëfal ci loolu di ñaan suñu boroom gën leen a jàppale defal leen ndam ci mission bi mhm. waaye maa ngi nuyoo ak tàggatoo mhm. tàggatoo bu dul tàggatoo ak seen mbokku suñu mbokk auditrice mhm. ak auditeurs yi ci réew mi ak ci bitim réew mhm. te tànn réew mi FM comme rajo mhm. di côté dégg mbokk yi kon ñu jox leen dig daje euh, dimanche bi di ñëw ci émission gox bi ak beneen invité jërë ngeen jëf